لا إله إلا If your daddy has got me wild. Yeah. leer ci barke Baay ak Cheikh Tidiane oustaz Mouhamadou Lamine Ngom Permettez-moi de vous saluer en tant que guide de notre daïra et de surcroît imam de la grande mosquée de Médina Baye nous profitons de cette occasion pour formuler des prières à l'encontre du khalife général, Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim Niass, et de son imam, Cheikh Ahmad Tidiane Aliou Cissé, sans oublier notre guide, Cheikh Cette conférence annuelle inscrite au calendrier de la Hadara est à sa dixième année. Ainsi, chaque année, chaque année les autour de notre guide Cheikh Moussa essayons de perpétuer cette tradition de la Hadara. La réussite de cette manifestation est sans doute à l'union la discipline et sans doute lié à l'union de la discipline et la force, mais surtout au soutien financier et matériel qui nous ont permis de supporter cette organisation. Parmi eux, nous pouvons citer Adia Fatou Faye, Pape Chonjen, où son âme repose en Le choix porté cependant à Adia Fatou Faye se justifie par son action en tant que talibé et son dévouement auprès du cher. Thiongien, qui était un homme pieux et véridique. Par cette occasion, nous rendons un vibrant hommage à, Cher, à Pape Cher Tidjandien, qui est un vrai soldat de Baïnès. Que la terre de Médina soit légère. Par mon voix, je tenais à vous remercier et vous souhaiter la bienvenue di wax beneen yoon jërëjëf yi a nekkoon yàlla yonent bi Cheikh Cheikh Ibrahima soxlawul leneen kon man bu mel noonu dañ koy ñaanal guddi fan ndax doomu ñeent su juddoo jarul ñaanal mu yaram su guddee fan rek mu am koy ñaanal guddi fan su soobee yàlla ay nga rek fii di ko wax sama doom bi ma muy jàng li muy jàng wax sikkat la njëkk a te Cheikh Moussa mii moo tax miir moo dox suma diggante ak këram sikkar ya nga xam ne moom lay sikkar ca biir këram guddi a sikkar xale yëpp ku ci jàng wax baatu laay laay balaa ngay jànge wax mu ngën a macha allah yàlla la yàlla fay Seyda Mariama Sarr na nga da nga xam lu war a ànd moo tax amoon mais loolu suñu maam Alaaji Abdoulaye Jolof la jóge ñëw lislaam indi ko jiyaat indi ko nga doon taalibe Baay jël bés bi tudde ko Papa Thione Seck moom it Jolof la jóge ñëw mu ne moom mii di Mariama Jolof la jóge ñëw kon nag ñoom ñëpp ay Jolof Jolof la nee na mu ngi dénk boppam ñu la xamal ne dana la jàpp te du la bàyyi ndax yàlla dafa def ngeen bokk njaboot bëri na ci sa daayira bi ñu fi nekk ci ñooñam lañ bokk bu ko dalee ca Lamina Ba nga xam ne moo ko jël yóbbu ko ci ministère Aliou Ba ñii mu yóbbu ko ci néeg bi man ak keneen ak keneen nee na lépp loo dugal sa loxo su soobee yàlla di ci gis loxo jàpp na la te du la bàyyi allahumma salli ala sayyidina allahumma cheikh sayyidi wa mawlaya cheikh alhaji abdullah ibn cheikh Abdou Aqib wa akhihi alkarim alalim alallama sayyidi wa mawlaya alhaji محمد زين بن الشيخ محمد المنتقى ومن معهم من إخوتهما سنوان وغير سنوان ñu ngi nuyu mboolem muqaddam boo xam ne teew nga fi di wax ne incha allah danañ tudd seen tur yi ñoom ñëpp waaye buñ bëgg a génne temps bi mooy dañuy présenté sëriñ bi Cheikh Mamadou Aqiba dana ñëw incha allah dana ñëw su ñëwee ñun ñëpp ñu xool ko te am naa yaakaar ne buñ ko xoolee ñun ñëpp. suñu xaajo yëpp dana faju ci barkeelu bi sallallahu alayhi wasallam ak barkeelu ni moo tax dañuy gaaw jox doomam ji nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ko maam xaaji léegi fuñ ko tuddee mën nañ ko xam niveau international ci xam-xam ak jàngale Cheikh Baye radiyallahu anhu sëtu baay la ndax kuñ ne baay mooy sa baay mooy moo jur sa baay lu rek teraanga la waaye nag teraanga dafa am beneen boo xam ne dañ koy fàgg mooy jàng xam ñu yàlla nga nangoo yem suufeel sa bopp bëgg nit ñi bëgganteeg ñoom jaxasoog ñoom def nit ñi ñuy ay nit kooku yàlla daf ko cay dimbale am ci cër bu lëm mooy sëti baay bi nga xam ne ci conférence yi ci gàmmu yi dëj ci ngénte yi ci jaxasoog yi te bàyyi li mu jàng mooy léeral bi bisimilah si la jàngale ko xam ne wax na ne moom yàlla yàlla aar na bakkanam ba nga xam ne kenn du gis mu jeng jëm loo xam ne daganut ci sharia lu daganut ci sharia ak ku xamut ci sharia jàngoo doo xam ne moo dagan ak mu daganut kon duñu taal duñu guddal wax ji li ñuy waxtaanal mooy bàyyi topp gi mu toppoon sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam te loolu yaakaar naa ne soxla nañu taalibe yi waxtu nekk rek dañuy soxla bàyyi ndax ñun bés bu set iblis ngi dugg ci suñ biir di ñu jaxasee noonu la Cheikh Ibrahim kon waxtu bu nekk war ñu soxla ku ñuy fàttali bàyyi di ñu xamal ak bàyyi kon ñu jox ko bu conférence ba ca kanam daañu sëriñ bi mu ñëw teew bi ak manel bi ci kanamam joxe seen i kàddu buñ paree ñu jox sëriñ bi mu ñaanal ñu ñëpp ñu gaaw dellu balaa 11 heures di jot incha allah ñu ngi ñaan yàlla ko yàlla defal tawfiq